wasalaatu wasalaamu ala sayidil awalin wal axirin wa mawlana muhammadin al amin wa ala wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmahin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëñ Gora Seck ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di nuyu waa Touba Argentine TV gépp nga xam ni ñooñu dalal fii tey mboolem ñi ci nekk di ci liggéey ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal tawféex di leen ñaanal fajuk ajo ba fi ngeen bëgg àggale liggéey bi ngeen àgg fa ci barke Sëñ Tuubaa di siyaare waa dëkk bépp nag ñiñ fi fekk di ay taalibe Serigne Touba ak ñu ñu fekk it di ay jullit bàyyiwuñu ñan ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru gàmm di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te wer ba naal yi yéene liggéeyal Serigne lépp mu matal ko ci barkeb Serigne Touba ak mboolem njabootuk Serigne gépp ginnaaw loolu nag euh, waxtaan wi nga xam ni Euh, moo tax yaakaar naa ñu invité ñu fi tey muy lu jëm ci mbirum gàmm euh, ku ne xam na ni gàmm day wax day day bis bu am solo ci lislaam ndax euh, ñu bari ci suñ mbokki jullit yi am na ci ñoo xam ne dinañ indi baatub gàmm di ko biddaal foofu laay njëkk sama waxtaan foofu laay jiite foofu laay njëkk a ñëw balaa ma jàll ndax dafa doonatul bis boo xam ni sax dañuy wax ni al biddaxatul xasana waaye ñun dañ naan faratala li waral loolu nag mooy suñ borom bi muy wax ci alxuraan ni xol bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi saalika fal yafrahu wa xayrum mimma yajmahun ibnu abbas mi nga xam ni mooy imaamul mufassirin ak Abdullahi ibnu Mas'ud ñoom ñëpp wax nañ ni euh, bi fadlillahi niñ koy firee mooy xilmu sariya waaye rahmatihi mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy lépp lu nit di daje li ci gën mooy daje goo xam ne dañuy daje ci ngëneeli yàlla yi ak daje ngir jëmmi yonent bi alayhi salaatu wasalaam looloo tax euh, alquran day firi alquran ndax wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina mooy illaa rahmatan mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon ak wa rahmatu rabbika xayrum mimma yajmahun kon day mel ni ndigalul suñ borom la ci boo xoolee euh, lim ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa taslima maanaam suñ borom dafa joxe ndigal ci ñi julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam te gàmm ku ne xam na ni yooyu rek moo tax ñu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi di fa daje mu mel ni nag euh, boo xoolaatee ku ci mel ni abu jahlin ku xam na ni amoon na aw ak mbañeel gu tar ba ku ñuy wax ad dimashqi yi waxoon ni isa kaana haasa kaafirun jaa zammuhu wa tabbat yadaahu fi ljahimi muqallada ata annahu fi yowmi l isnaini daiman yuxafafu anhu bi sururi bi ahmada fama zannu bil abdi allasi kaana umruhu bi ahmada masruran wa maata muwahhida maanaam kooku taalibeb ibnu taymi la mook ibnu kasir ñoo bokk ndey ak baay maanaam ñiy weddi gàmm ñiy weddi gàmm kii wax lii ak seenub maanaam ak ak seenub sëriñ moo maanaam ak ñoo seen ibnu nga xam ne mooy seenub sëriñ ab dongam moo wax lii moo wax ni euh, abu jahlin mi nga xam ni ab yéefar la abu jahlin ku ne xam na ni ku bañoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam la pexe mu ne daana ko def ngir bëgg koo faat waaye dafa am mbokk mu ñuy wax xabaas dafa tëdd guddi gént gis abu jaxlin dal di koy laaj ni ko kay fa xaalu ko yaa aba jahlin abu jahlin ni ko ah man de maa ngi nii rek ba ma ba léegi daal ñu ngi may mbugal rek ci sawara mu tàng lool metti lool mu ah, waaye nag altine bu jot suñu borom dana ma woyofalal mbugal mi maanaam altine bu jot yàlla dana ma génn ci àjjana ma toog ci biti feexlu ci keppaari àjjana yi Abbas ni ko annaa lakki haza noo def ba am lii mu ni ko bi xetqi raqabatin musamma suwayda e, yow mi fi yow mi wilaadati rasulillahi sallallahu alayhi wa mu ne ko bi yonent bi am mbégte ba goreel sama jaam bu ñuy wax Suwayda mbégte moom ma bëggoon ci euh, yonent bi bi gane ganee àddina loolu moo waral altine bu jot suñ borom di ma woyofaral mbugal mi looloo tax ad Dimasqi daal di posé question ni euh, Abu Jahlin mi nga xam ni euh, yàlla da ko bañ ba indil ko aw saar ci alxuraan ni tabbat yadaa abi lahab wa tabba maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran saata lahab wa imra'atuhu hammaalatul hatab fii jiidihaa hablum min masad kooku bu fekkee ni yàlla mooy falal mbugal ci kawam naka jaam bi nga xam ni nag fa ma zannu bil abdillazi kaana humruhu bi ahmada masruran wa matama waxida naka ki nga xam ni giir dundam gépp nag bëgg ci yonent bi la ak màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu boo ci xoolee rek day day mel ni gàmm lu mënta ñàkk la la ca desit mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana woor altine lu baree bari biñ ko dafa wax ni ci laa gënee àddina kon noonu dañoo boole farata ak sunna di def te jàng siira yonante bi ak i jaar-jaaram ci lañ mën a xame euh, dundug yonante bi ci lañ mën a xame hadis ci lañ mën a xame lu bare bari kon maa laa yatimmul waajibu illa bihi fa huwa waajib dañuy wax ni lépp loo xam ni su su su soo ko defut euh, lala war du mat loolu waajib la boo gisee ñu ni jàpp lu war la julli mooy farata jullee ko julli julli war gi war moo tax njàpp war kon gàmmu fi mu ne nii da lu mën a ñàkk kon loolu loolu lañ ci doon leeral gàmmu nag muy lu am cëslaay ci lislaam ndax ku seexul xadim mi nga xam ne ñun amuñ lu dul moom wax nañ ni weer wi bu musaa ñëw daf ci daa bëgg lool di ci di ci bëggle mboolem lu mu daan def ci aw yiw daf ko daa yokk am na fu mu waxee ni ci genn xasiida gum way ci rabiixul awal tënke ko rabiixul awal mu ni rahabtu taaziman bi shahril muntaqa alayhi taslima mu ni lil irtiqa basharta yaa rabihu kulla zittuxa yaa zarfa noorin wastifa in wantiqa mu wax ni maa ngi yaatal di maggal weer wi nga xam ni mooy weeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko dalal dal gu yaatu jàllu wax ni ko yow weer wi képp koo xam ni am na ak ragal yàlla am na taqwallaahi su su dikkee da nga am mbégte am mbégte mu mel ni loolu li li ko waral mooy lam ca tagaat ni yaa man xabaana billasi lam yuxlaxaa naziruhu wa abadan lay yuxlaxaa yow weer wi yow yaay yaa ñu andil yonent bi nga xam ni yàlla mësta sàkk ku mel te yàlla du sàkk ku ni mel ba faw kon euh, mel na ni Euh, képp koo xam ni ni sëriñ bi waxee am nga ak ragal yàlla am nga euh, xol bu set weer bu ñëwee dang ciy bëgg waaye doo bokk ci ñi nga xam ni da leen di déranger ak yu ni mel mu mu doon weer woo xam ni it wax nañ ni sëriñ bi daana ko màggal ci màggal goo xam ni musuñoo gis ku ko màggale noonu ndax sëriñ dañoo wax ni soxna maam Assawaale mi nga xam ni mooy maamam di waajuru soxna jaara dafa nekkoon ab jàngalekat wax nañ ni téeméeri nit mokkale mokkale nañ alxuraan ci ronam daana wax ni soxna sa fóore la dadaa sol yére ya di tëralal dongo ya mboolem téere ya soxna soosu wax nañ ni euh, taalifaloon na ko ab sindi di boo xam ne moom ci boppam da ci daa gàmm kon Sëñ Tuubaa euh, gàmm bi mu ko njëkkee woote nag moom mooy at mi sëñ Maamoor Anta Sali ba at mi delsi maanaam ba sëñ bi làqoo ba mu delsi mooy li mu waxoon ni euh, axyaytu mawlidan bi min assasine assasine mooy atum junni ak euh, ñett téeméer ak benn mooy mooy mooy at mi sëñ Maamoor Anta Sali ba at mi delsiwaat mu mu mu fonkoon ko lool ndax boo duggee ci jës bu jës bul xolob wax na ci lu bare bari wax ni laylatu mawlidin nabi laylatu maxwi riya bi laylatu maxwi tahabi bi tuhri si taasumi nee na mooy guddi googu nga xam ne yonente bi ci la gane àddina mooy guddi gi nga xam ni euh, guddi far sikk la maanaam lépp luy sikk ak lépp lu du dëgg ci guddi googu la ko yàlla far mboolem coone yi yi nga xam ni doomu aadama yi daana dal ci seen kaw wala mi ngi woon ci àddina ci la ko fi yàlla jële fa may yoxasim mawlida xayral baraya ahmada faka shahidan shahida badran bi xayri waxami wax ni képp koo xam ni màggal nga guddi yu yonente bi alayhi salaatu wasalaam am nga tuyaaba ju toll ni ña fekke woon badar te badar loolu daraja ju rëy rëy la ndax dama koy faral di wax ci samay waxtaan ndax eh, lislaam dafa yéeme ndax boo xoolee Ali ibn Abi Talib jàkkaarloo ak doomi nijaayam maanaam kim jàkkaarlooloon mook yaayam ñoo bokk ndey ak baay nga xam ni Aba Ubayda moom it jàkkaarloog baayam Amir ibnu Jaraax ci xare ba Hamza jàkkaarloog ab gorom maanaam koo xam ni mooy bàyyi soxnaam moom la jàkkaarlool nga xam ni dafa bàyyi soxnaam ca kër ga jàkkaarloog euh, euh, goro ba bi xare bi déparé Aba Xubayda moom dafa dagg bopp ki nga xam ni mooy baayam yëg ko yonent bi ni ko xalaat naa képp ku la bañ ma def ko nii ak donte sama baaya ak donte sama baaya sa moom it def noonu daal di saam euh, dal di saam ab gorom Ali ibn Abi Talib daal di saam moom itam doomi bàjjanam Aba kon ñoom ñëpp ku ne xam na ni loolu lu rëy rëy la ki nga bokkal lépp wala muy sa kii baayam kii doomi nijaayam kii gorom jur soxnaam nga jàkkaarloo ñoom attan ko cër jees ngir lislaam te Aba da dafa def loolu ba noppi daal di tiit fit wi di rëf-rëfi alxuraan daal di wàcc ni ko jërëjëf yow mi rey sa baay walaw kaanu abaa'uhumu aw abnaa'uhumu aw ixwaanuhumu aw ashiratuhumu ulaa'ika kataba fii xulubihimul iman Sëriñ Tuubaa nag ni képp koo xam ni guddi gi màggal nga ko yaag ñooña yéen a yam daraja laa taxsibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahyaun inda rabbihim yursaqun ñi faatu ci yoonu yàlla seen ru seen dem waaye seen ru yi mi ngi dund yàlla mi ngi leen wërsëgal kon guddi gi bis bi lu mat a fonk la am na fu mu waxawaat ni fa kullu man anfaxi anfaxa fii mawlidihi l musharrafi maalan bi xayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman hadar yawma hunaynin wa sabar wa yawma badrin wa nasar xayril waral mufahami nee na ku ci def ab dërëm rek ab dërëm ci guddi gi te yàlla rek tax ci lu dul puukare ndax jëf te yàlla taxut sëriñ bi taxul muy jëfloo kenn nee na képp ku ko def mel nga ni mboolem xasawaar yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam daa def yépp fekke ko badar hunaynin te Xunaynin xare bu métti la wa yawma Xunaynin iz ajabatkum kasratukum falam tuxni ankum shay'an wa daaqat alaykum al-ardu bimaa rahabat summa walaytum na keroog sax julli ñi dañoo mujj daw ngir lan mooy coona ak tartar nee na yooyu yëpp bu fekkee guddi gi def nga ci sa benn dërëm nee na mel nga ni ku fekkee euh, ku fekkee xasawaat yooyu xare yooyu yëpp am jàll na sax ba ni képp koo xam ni màggal nga ko ëllëg suñ borom du la xisaab falaa yuxaasabu gadan fa fantari maw wa azimi maanaam na nga ko na nga ko warmal te màggal ko ku ne xam na ne xisaab lu metti la ndax doomu adama bu bu ëllëg taxawaay bu metti ba poñantey baat ya ndax jotaay ba waaw dama koy wax lu bari li koy waral mooy maanaam àq yu bari yi ak diggante nit ak nit yoreel nit bor bañ koo fay yàq derum nit wax nit naka sudul noona njortu ci nit lu dul noona yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne bu ëllëgee euh, suñ borom bu agsee day bàyyi nit ñi ñuy poñantey baat ak a coow bañ jaaxle buñ demee ba nga xam ni jaaxle nañ nag ba kenn xamatut fu mu jëm yaqulu kulluhumu nafsi suñ boobaa yonente bi mooy ñëw yaqulu ummati euh, moom moo naan sama xeet moom rek mooy wax loolu ummati ummati ummati bu ko defee suñ borom ci lay doogi ñëwee régler jaam ñi maanaam xisaab kenn ku nekk ak la nga ameel sa moroom ci àq nga fay ko ko képp koo xam ni it euh, sax dangaa dem ba jeexal ñu jël yu bonam jox ko ki nga xam ni moom nga yoreel xaq sa digganteeg jaam ñi boo noppee nag yaag yaa yàlla na leen ñëwal ñu régler ma ak yow ndax la la daan sant yaa ngi ko daan def ndax yaa ngi daan julli yaa ngi daan woor yaa ngi daan aj màkk yaa ngi daan natt asaka nangam ak nangam kon xisaab yooyu yëpp sëñ Tuubaa nee na képp koo xam ne màggal nga guddi gi ëllëg yàlla du la xisaab mooy da ñëw rek directement dem dem dem àjjana kon muy guddi goo xam ne guddi gu am solo la guddi gu mat a bàyyi xel ndax yiñ ci def yëpp day day day day day wone fu suñ borom teg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yonent bi mooy mbindeef mi nga xam ni lépp lu yàlla sakk lépp lu yàlla bind jëmmam ja moo tax te dara melut ni moom ni ko imaamul Buseyri waxee kayfa tarxaa ruqayikal anbiyaau yaa sama an maataawalat ha samaau lam yusaawuuka fi ulaaka waxad xaala sanan minka duunahum wa sanaaw innama mathalu sifaatuka linnaasi kama mathala nujumul maaw anta misbaahu kulli fadlin fa maa tasduru illaa an daw ikal adwaaw ko yow fi nga àgg ci ay maqaama ak daraja yonente yi mënuñ fa àgg nan lañ fay àgge ni ko asamaan nga soo xam ne amul benn asamaan suy sutanteeg yow mënuñu yëmu sa kawe ak sa mbaax ak say daraja ak say maqaama ak guñ la ci catuwe nee na ni ma ko mën a misaale daal euh, dafa mel ni rek ndox moo xam ni dangay ngay seen ay biddiw ñu tàmpe ja waaye dëgg dëgg biddiw yi dëgg dëgg jëmm ja mooy yow ne ko kon yëmu kenn moo tax yàlla wane gu muy wane wala jullit ñi boroom xam-xam yi ndax guddi gi ci hadis alxuraan ak sunna ak dëppoog boroom xam-xam yi lañ koy màggale ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy mbindeef mi ma waxoon léegi nga xam ni suñu borom fonk na ko fonk koo xam ni wax na ni man ci sama bopp damay liggéeyal yonente bi maanaam dama koy damay julli ci moom maak samay malaayika ba noppi moo tax mu wëlbatiku woowaat mbindeef yépp ni leen na ngeen julli ci na ngeen di julli ci yonente bi inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima muy woor muy julli muy aj màkk natt asaka amul genn jaamu yàlla gëm genn ibaada goo xam ni yàlla gis nañ yàlla nee na dana ko def gudul julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku ku yàlla fonk la ku yàlla bëgg la bëgg foo ko takk weesu ko àgg na ci sax bañ ni ëllëg yowmal xiyam mbooleem xibaadaat yi mboolem jaamu yàlla yëpp danañ leen xisaab julli woor aj makk natt asaka sarax yëpp danañ leen xisaab lenn rek la lees fa dul xisaab mooy julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam looloo tax nag euh, gàmm gi képp koo xam ni ab jullit nga képp koo xam ni euh, bëgg nga aw yiw wala képp koo xam ni am na lu nekk ci sa bopp loo xam ni jaaxal na la wala muy am looy bëgg xëcc wala nga bëgg a jege yàlla wala nga bari ay bàkkaar suñ borom bëgg yàlla jéggal la ak yitte jum ak yitte jum mën a doon lum rëy rëy rëy na ko waajal bu baax a baax te yàlla rekk tax te sellal ko te xam ni boo fa ñëwee lépp loo fa indi ci ay safa ay tawat suñ borom dana ko saafara fa may yoxan si mawlida Euh, tansimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi hisdiyaadul minnati li muxlisim muhazimi nee na màggal ko ci ci sunna nee na day waral euh, suñ borom wommat nu yóbbu ñu waaye nee na it day faj suñuy aajo day faj suñuy ajo fajug ajo nag bi an najaatu wal falaax an najaatu mooy fajug ajo al falaax mooy taxe maha sururi wan najaa ba tey mahan difaahi neqami mboolem lu nit di ragal ku ne xam na ni bàmmeel nit ki bu dekkee wax nañ ni càngaayam yi mm, fekk na ñaq wi lekk ko suuf ak suuf si ak yàggaay ba bu dekkee du sol dara waaye suñ boroom dana ko bindal dana ko eh, defaral ay ay ay ay yére ci leerug salaatu ala nabi ci leerug julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci leerug gàmm ci la ñuy defaral nit ki mbubb moo xam ni day sol yaram wa mu mu waaxu dem déggi àjjana kon bis la boo xam ni euh, li ñuy wax promotion moom la mooy boo boo lu la rawoon rek ci lu baax wala ci aw yiw bis la boo xam ni boo profité rek mën nga ko cee dabaatal lépp lu nekk ci yow nag ci ay bàkkaar yu bare ak ay ay ay lënt-lënt ak i jafe-jafe boo ko ci profité suñ borom mën la mën na la koo jégal kon ñu ñu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax a baax te gën cee farlu gën cee góor góorlu ndax sëriñ bi am na gàmm goo xam ne ci njaareem wax nañ ni daa xumba xumb ba nga xam ni soxna si dafa réer ci digg mbooloo mi nga xam ni dañoo mujj jël rajo yi di ko laajte ngir barik mbooloo ma te sëñ Tuubaa ku ne xam na ni gàmm képp la daa dugg ci biir mbooloo mi di yëkkati xellil ci boppam kafe di jox nit ñi ak tàndarma ci biir gàmm gi am na gàmm koo xam ne dafa dem ba xaalu sax woo sëñ ma sàmba ni neel ñee di jàng xasida yàlla bëgg na ci ñoom biñ toogaatee tuuti mu waat ko ni ko neel ñee di jàng xasida yonente bi bëgg na ci ñoom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam biñ toogaatee tuuti mu woowaat ko ni ni ko demal ñee ñee di jàng xasida nee leen bu leen neexee ak bu leen naqaree danañ tabbi àjjana kon loolu gàmmu rek moo ko mën a maye ndax dayob gàmm yaa ngi koy xamee ci ci ci ci mbindum sëñ Tuubaa ñun ñun yi ndax mboolem xasidaam yi yi muy way ak yi muy wax yépp day delluwaat ci tagg yonent bi alayhi salaatu salaam te ci weeru gàmmu la ko tàmbali ndax weeru gàmmu weeru gàmm la tàmbali tagg yi ndax mboolem euh, rabiihul awwal euh, raa gi bind na ci ay xasida yu bari baa gi yaa gi ayin gi bu bu xëy na jotaay bi dafa yàgg waaye bu yaatu woon ñu gën cee leeral xasida yi mu woy woy ci saf ci ci ni mu ci safar noon la woyee ci gàmm ndax salaatu sitta bi mat sitta taatihi battama tisaay juróom juróom benn weer yi du koy julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam juróom benn weer yi mu koy tagg yonante bi kon moom atam mi lépp gàmm la waaye nag bu weeru gàmm ñëwee da daa yokk lam daan def ci ay ay tagg ci bernde ci yitte ndax ñu baree bari wax nañ ni dañuy bàyyi ba am buñ musa am aajo joo xam ne di leen lool dañuy bàyyi ba weeru gàmm ndax lépp léppam sëriñ bi mbir mu nekk dajaa dem ba jéggi dayoo ci def lu baax waaye nag weeru gàmm bu musaa ñëw day yokk loxoom ci lépp nag daana wax ni weer wi bu duggee bépp tawat boo xam ni daloon na ma wala bépp feebar boo xam ne daloon na ma suñ borom da koy da da koy saafara da koy dindi moom weer kon sëriñ bi noonu la noonu la ko fonke woon am na gum tënk ci rabiixul awwal ni rabixtu fi matxi nabi muhammadi rebxan ilayya xaada fadla zamadi nee na bénéfice yi ma am ci weeru gàmmu day ci sababu tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na wammatal na ma ngëneeli yàlla yépp kon barra anil baaxi min al amraadi wala si waaye saaxa sax tiraadi mboolem tawat yoo xam ne it daloon na ma gaaroon na ma nee na ci weeru gàmm wii ko suñ borom saafara dindil ma ko yaquudunu xib xubbul ilaahi wa rasul ilal xay rasul mu waxit ni bëgg gi ma bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak bëgg gi ma bëgg yàlla wommat nañ ma ci weeru gàmm yóbbu ma àjjana kon làq naa may yi yi nga xam ni mooy may ya te mboolem ñu baax ñi may yëgal lañ doon sàkku ilay yaqaada fii kitaabatil xuyur mun sale baatin lii wa fustu bi duyoor nee na suñ borom wommat ci weeru gàmmu wi la yàlla wommate mboolem yiw yëpp def ko ci sama ci sama mbind yi kon nee na euh, suñ borom faye na ma it ci weeru gàmmu ay kër kër yi nag mën naa nekk kër sëñ Tuubaa yi ñuy tabax ci réew yi kër yaa ngi Amérique kër yaa ngi Italie kër yaa ngi Espagne kër yaa ngi Brésil kër yaa ngi Argentine waaye kër yaa nga àjjana it ba tey kon weer wi gis ngeen ni ko sëriñ bi fonke woon ay rabiihul awwal li ma ci dajale rek li ma ci yor nii ëpp na fukk yoo xam ne lépp ci weeru gàmm la ko sëriñ def kon loolu képp koo xam ni ak taalibe nga war ngaa gën a soññiwaat bu baax a baax a baax ci weer wi di gën a euh, soññaat mbokk yi di leen gën a ñaaxaat ñu fonk bis bi ndax niñ koy gàmmoo mooy ni ko Serigne Touba daan gàmmoo ci njareem fii ci réew mi mooy fukki euh, ñetti kuréel bi jës bu bi mawaahibu bii muqaddimaat bu ko defee am na beneen kuréel boo xam ni am na kenn koo xam ne dana toog jàng albarsan julli ci lépp ay salawaat la ak julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam ak tagg yonante bi alayhi salaatu kon noonu mooy euh, gàmmu gi nga xam ne fas nañ ko yéenee gàmmoo fii di ñaan ñëpp ñu àgg ceeg jàmm Euh, di ci ziyaare it bokki taalibe yi nga xam ni ñoo fi nekk ak bokki euh, jullit yi fi nekk di ko taxawal taalibe Cheikh Ahmada Tidiane yi ñoom ñi ngi koy taxawal ñoom itam fépp ci àdduna bi ñoom itam yàlla na leen ci suñ borom feex defal leen ci sutura wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh